asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ci ndigalu Cheikh al Bekaay ibnu Cheikh al Bekaay xalifatul am li tariqatil xaadiriya waaw Serigne Sidi Mokhtar xalifa de Baybou mooy woote lu mu wootee

14 heures Nous devons prier D'aller di inaugurer li nga xamante ni 16 h Nous inaugurer li nga vous savez la route Qui mène à Saragati 17 h nous inaugurer li nga xamante poste de santé ak ziar annuel 17 h 30 nous ñu def cérémonie officielle 21 h Nous ñu dugg ci gàmmu gi kan moo faire Le taxawee C'est bi di El Hadji Cheikh Bou Diop l'ambassadeur de Borom Ndiassane ay ca vendredi 11 février 2022 Saragati waaw Serigne всех Sidi Makhtar Kounta ni maa ngi ci woo mbokki jullit yi ni maa ngi ci woo mbokki Sénégal Serigne Cheikh siidi Makhtar Kounta ki nga xamante ni moo donn baayam ki nga xamante ni moo wuutu baayam ki nga xamante ni moo uuf ay rakkam borom daraja ji Serigne Sidi Makhtar Kounta ni maa ngi ci woo képp kuy wax ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu anna muhammadu rasulullah bàyyiwul murit bàyyiwul tiijaan bàyyiwul xaadir ni bàyyiwul laayin bàyyiwul ñaseen bàyyiwul canaba canaba maa ngi woo képp kuy wax ashadu wa ashadu anna muhammad rasulullah na ñëpp ñëw vendredi 11 février 2022 fële ca cariak Saragati nee naa leen cariak fala ajo yi di fajo sëtam yaa nga la